mooy li ma la wax rek tu es nga taxaw parce que da ngay xeex ñoo xam ni vous avez pas même mêmes waa waaw d' accord mais dafa am yoo xam ni dafa dafa feeñ ci génn addunaam bi ak yoo xam ne tamit euh, biñ koy waajal ak yooyu loolu tamit naqari leen ma jox la exemple. Mhm. levée du corps bi. waaw hôpital. ñëpp riir dem wutali fa. ñu ñëw mhm. fekk leen fa ne leen jël leen seen néew dem levée du corps amul. waaw ñoom dañ préparé woon levée du corps au dernier moment ñu ni non levée du corps du am parce que l' excuse bi ñu jox moo di affaire u Covid bi mais pour man loolu c' est du cinéma parce que du un citoyen lambda moo dee on parle du doyen des juges un citoyen lambda n'importe qui deewut vous comprenez ce qui fait que ku mel noonu bu deewee je pense que avec il mérite dañ ko war a accompagner avec tous les honneurs yi mu li nga xam ne moom la mérité il faut rendre à César ce qui appartient à César. mais gouvernement am na ñu ñëwoon am na ñu josoon ñëw. gisuñu leen. kenn ñëwul. gisuñu leen. Macky Sall fan la nekk du palais de la justice. waaw ah. hôpital principal fan la nekk. palais de la république ak hôpital benn la de. benn la d' accord pourquoi il ne s' est pas déplacé ñu rendre ko honneur. kon bi mu feebaree itam seetiwu ko. yëguma ko. bi mu deewee it ñëwul daa jaale suñu. te loolu léegi ñëwagul. xam nga on vit dans un pays boo xam ne nii il faut dire les choses telles qu'elles sont ñun amuñu njiit on n'a pas des chefs d'État ici en Afrique. Afrique li ñu am fii waxuma Sénégal de mais je parle d'Afrique li ñu am ce sont pas des chefs d'État mais ce sont des bêtes d'État je pèse bien mes mots ce sont des bêtes d'État parce que je vais te vous dire un truc euh, il s'est déplacé. dem France assisté di def di compatir métitu Macron ci kawu Charlie Hebdo bi ba manifester wu marché et tout ça là d'accord tu peux le faire ci ñoo xam ne ni la cause dafa jóg dem pour jàppale ñoo xam ni dañ doon xeex islam yow nga am un citoyen boo xam ne ni personnalité la woon ci réew mi nekk doyen des juges gaañu ñëwuloo nga présenter des excuses euh, les condoléances à sa famille assisté wuloo ci levée de corps bi assisté wuloo ci enterrement bi peut-être que il a ses raisons. mais yónni na ab délégation bu jógee ci gouvernement mais quelle délégation. ministre bi il est venu une semaine après. ministre bi ministre de la justice bi bu muy ñëw. ci levée du corps bi boobu fekk na ambulance baa ngi génn. personne n'était là-bas pour defal sax la famille toppatoo leen kayit yi comme euh, euh, au niveau de l'ambulance dem au niveau de euh, euh, euh, de la gouvernance yooyu yëpp defuñu ko yooyu yëpp famille yi ñoo ko def suma benn jarbaat moo ko def. mais biñ demee Sokone autorité yi ñëwoon nañ mais say collègues ñoom Bassirou Gueye ak yooyu surtout le procureur de la République. un autre lâche. déedéet waay. waaw. kan Bassirou Gueye. Bassirou Gueye mu may dégg man li may wax ci télévision laay wax c'est un lâche da may demander le pourquoi. pourquoi. Samba Sall feebar na camarade de promotion wu Bassirou Gueye la. pourquoi il n'est pas allé le rendre visite à l'hôpital xam nga excuse Covid c'est bien beau mais fi ñu bëggoon dem ñu ngi fay dem Macky Sall toogu fi devant le commode mortel di organiser di organiser euh, euh, anniversaire am calculé woon nañ Covid bi Youssou Ndour defu fi concert de créé wuñ fi làmb Covid bi c'est bien beau Bassirou Gueye n'est jamais parti le voir à l'hôpital Bassirou Gueye je te dire pire mu ngi may dégg bi ñu demee yóbbu néew bi à Sokone ci condition yoo xam ne nii benn escorte lañu am benn gendarme moo leen escorté ba jam ñaajo jam ñaajo ba jam ñaajo foofu la gendarme bi yem ah bon ah oui kon motard bi yeggul Sokone motard bi jam ñaajo la yem waaw ñu continuer man juste rek benn entre parenthèse nekk naa fi dans le tourisme ci année 2000 yi jëlee nañ fi ay tubaab mhm. ñu escorté ñu ñetti motard escorté ñu ba Saly ñu ñibbisi waat aller retour un doyen des juges gaañu ñu di koy yóbbu dans son village natal parce que c'était son souhait benn motard moo leen escorté ba jam ñaajo mu dëpp il rebrousse chemin Bassirou Gueye yegg na ba li tax ma ne la Bassirou Gueye c'est un lâche bu ko neexee nag en tant que procureur mun na ma accuser de n'importe quoi outrance à la magistrature patati patata je dis que c'est un lâche bu ma amoon un autre qualificatif dinaa ko ko wax sa camarade de promotion ngay procureur général de la république moom muy doyen des juges mu gaañu ñu dem ba dans son village natal à Sokone bi ñu yeggee paa yi ne dafa tàng nañu xaar ba tàkkusaan bi ñu doog ko denc parce que dëgg la mag ñi bu njëkk ba bu tàngee ba tàng heure boobu duñ ciy denc néew moom mu joxe excuse ne dafa am beneen dëj bu muy dem il a rebroussé chemin. kon fekkeewul enterrement fekkeewu ko waaye xam nga lu tax lâcheté bi la ak xat-xat bi mu nekkoon. dafa gêné woon. amee ah, bien sûr bët bu tuñu ros ba pare ñaari lecture man laa ci gis moo di ne benn lâcheté bi la. ñaareel bi Samba la meyam toll foo xam ne nii yàlla dimbale na ko ba xëy na un lâche bu mel ni moom du tim bàmmelam parce que waaye nag na jàpp nag benn mbir li alxuraan wax rek al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat li ci yàlla teg nag lu leer la wallahi lazim la zulmal yawma nee na bés boobu bakken bu nekk rek bakken bu nekk rek sa bés a ngi ñëw te bés boobu dul bés buy moy la zulmal yawma du bésu fen ndax yàlla du fen waaw moom li fi li yóbbu doyen des juges du ko fi baax parce que l'excuse bi mu joxe xam nga euh, dans la vie il faut savoir mentir boo gisee yàlla lépp lu mu ayee rek y a beaucoup plus de conséquence négatives que positives boo gisee yàlla di ñu ayee fen parce que yéen da fen dafay sax yëngal arrache sëñ Tuubaa daan na wax ne toog di jàng bàyyi fen moo gën toog sax di jàng alxuraan. boo taxawee nag nga joxe excuse ne comme quoi da ngay dem assister ci beneen néew beneen dëj boo xam ne kooku bi mu gaañoo yàgg na alors que bii mu ngi fraîche maanaam c'est frais c'est un deuil qui est frais te xas nga déplacé wu ñëw ba foofu diggante tisbaar ak tàkkusaan ñaata heure de différence la nga rebrousser chemin bu fekkente ni nag am na neen lu ko nit mun a expliquer man moom ma démissionné wu ci sama devoir d'entendement. ma FM diggante bi mu jëlee dossier bi noonu ak euh, bi mu tawatee. dafa dafa gudd wala yàgg na. non dossier bi. wala daf ko fekk ci feebar bi non instant boobu bàcc bi mu ba bi mu libéré Sonko sax euh, c'est après qu'il est tombé malade xam nga dafa dul Bassirou Gueye kese sax on parlait de Bassirou mais Sonko. Mais Sonko, a pas plus mystificateur que lui. Sonko, c'est que am na loo xam ne boo ko waxul dañuy foog ne man mii toog di fii wax ak dina am parce que nit booy wax dafa am ñi lay déglu te ku ci nekk dafay am sa perception de la vérité waaye dëgg benn kese la man mii di wax yow man musuma voté dans ma vie man je ne crois à aucun politicien xaw musuma am carte électeur nga ne Sonko. li tax ma ne la c'est un mystificateur il n'est pas reconnaissant. mm mais Bathie lui a rendu beaucoup de service Bathie Sonko toog na ci bureau bàcc man lii moom moo ma ko wax ci entretien ba Bathie Sonko mu abal ko mu sajaada mu julli moom bi muy taxaw Sonko bi muy njëkk taxaw di cité bàcc boobu bàcc jëlagul dossier bi mm-hmm. boobu doyen des juges yoragul bi bi ñu demee nag ba nga xam ne toog nañu ñoom ñaar ba waxtaan mu xamal ko ne lii confrontation bii du intérêt réew mi boo leen ne da ngeen di déloger Macky yéen ñële dog char yi taxaw bakken yu rocci c'est le Sénégal qui perd moo tax nit ñi nañu delloowaat en arrière. kon soo da ko waroon delloo njukkal quoi. mais il ne l'a pas fait. li tax mu waroon ko delloo njukkal. li tax mu war ko delloo dañ koy tëj. non non parce que moom ki nga xam ne toog nga yow accuser ko. Mhm. tudd ko ci loo xam ne moom yoragul dossier bi. loxoom takku ci. nga dem ba ci biir ba gis ne kii jugement bi ma amoon ci moom dafa ute avec la réalité avec la personne bi may waxal mm-hmm. mu libéré la moo tax bi mu génnee le même jour le 8 avril boobu bi mu génnee ba dem di wax il n'a pas cité Samba Sall dafa ne Macky Sall Malick Sall Bassirou Gueye léegi lu tax mu seppi ci Samba Sall est-ce que newul lim fi jógee tax déedéet boobu jógewu fi mm. boobu c'est le jour bi ñu libéré Sonko dara mm. le jour bi ñu libéré Sonko. le 8 ah. avril boobu. lu tax bi yoon tuddul kii Samba. waaw. est-ce que dafa am lu xewoon ci bureau bi lu Sonko waxul. mais li ko guidé ci discours am bi. Mhm. maanaam ni ko euh, ni ko. Samba ni ko Samba sermonné. ramane ko à la réalité. xamal leen ne leen nañ leen lutter pour le pays. c'est ce qui l'a fait changer moo tax mu am beneen gis-gis ci nit ki. boo xam ne Samba mi maanaam li ko nit ñi di waxal ak moom bokk. ah waaw li nit ñi di wax avec la réalité moom li mu constaté c'est pas pareil. d'ailleurs un de ses avocats wax na ko. d'accord léegi donc delloowaat leen nga baal ma rek delloowaat leen en arrière. ngeen déglu discours Sonko bi le jour bi mu génnee bi muy wax il n'a pas prononcé le nom de Samba premièrement li tax ma ni la Sonko c'est un il n'est pas reconnaissant euh, bi Samba deewee. am na benn mu ngi def benn ci discours am yi parce que les politiciens ils sont tous pareils c'est du pareil au même seen intérêt rek moo leen fi nekkal intérêt réew mi ñuy wax ni nekkaluñ fi réew mi seen propre intérêt lañ fi nekkal donc moom bi muy wax mu ngi wax ne waa am na ku yore woon dossier bi nekkatu fi yal na ko yàlla yërëm mais ki yore woon dossier bi il a un nom il un statut wala rëy na réy boo xam ne wala iñaan na iñaan boo xam ne mënu ko prononcer wala boo ko waxee il va perdre sa langue. dëgg la. moo tax ma ni la non à part que c'est un man je ne suis pas pour juger les gens wala di leen coller coller yenn étiquettes yi mais li ma constaté laa wax parce que ñàkk reconnaissance mënul weesu loolu. mënul weesu loolu d'accord cinq minutes moom moo ci des. Mhm. Euh, doyen des juges nag euh, ci bi ñu leen gisee ak léegi li ngeen ñu expliqué mooy ku bëggoon jaboot la te ko te ko baax la par rapport rek. mbax na bi ko yenn sénégalais yi solal ndax position gis nga tey jii nii Ahmed boo leen génnoon gis maçon yi ko doon liggéeyal wala gis ñi ko doon tere ñi nga xam ne sàmba bu ñëwaan toog fii ngeen toog ci suuf lay toog c'était un gars bi nga xam ne c'était un rassembleur xale du bëggu nit ku bon sàmba fu mu mus a dem rek xale yi dañ ko bëgg xale nitu seytaane xale du la bëgg loolu moom yaqin la koo xam ne nag bu jogaan sax koñ ba bu mu bu fa daan dem sax dafay gaare otoom fu sori dox këroo kër mu dugg fa képp kuy mbokk képp kuy mbokk da ko seddeel la même chose man mii di wax ak yow tuddee naa ko doom bu bonoon duma ko ko tudde mais nit ñi nag xamuñu xamuñu kan mooy sàmba Sall waaye booy wër ku baax ba romb ko doo ko gisati. jabaram ak doomam yi ak yenn ñi ko gën a jege bi affaire bi maanaam bi mu génnee àdduna lan ngeen dund keroog. métit xam nga nga toog nekk ci sa kër nga bàyyi ay seex yu ndaw yoo xam ne dañ la miinoon foo toog ñu ngi foo sa kow yéeg fii épaule fii si sa kaw mbag yi ndeysaan bëre këpp. nga yeewu suba teel ci ay xale yu ndaw ñu ne la yaay ñuy se ñuy wër seen papa ci biir kër gi dafa metti ça fait mal jabaram moom rek la xam ba fii may wax ak yow nii boo demoon léegi seeti ko yaa ngi ko fekk fi mu sëgg mu ngi sëgg di jooy nekk nag nit ku jullite sa papa nag moom moom mi ko yar. suma papa parce que moom nee nañ ay waajuram dañoo teela dañoo teel a moom dafa teel a njëriñ. après sa ko dafa teel a dafa teel a perte ay parents am euh, mun naa wax sax ne daanaka xamul papaam donc suma maam moo ko yar ak suma papa ñu dugal ko école à Sokone Samba Sall il faut aller ngeen laaj ko xaritam yi nga xam ne ñoom la màggandoor ku mel ni ñoom Moustapha Dieng ñoom euh, Moustapha Meng ñoom Mouhamed ñooñu ñoo xam Samba Sall. kàddu gu mujj gi lan nga doon dénk sénégalais rek. sénégalais yi li ma leen di dënk nañu def attention. Mm-hmm. te xam ne bakken jóge na fi ay bakken rot nañu te nañ bàyyi xel am na bakken yoo xam ne waruñu rot ci réew bu fa rotee rek problème dana am. Mm-hmm. waaw nañu bàyyi xel xool bu baax fi ñuy teg seen tank te nañu seet liy intérêt réew mi. ki ñu yaakaar ne moo yore intérêt réew mi wala boog am nañ ci moom njortu rafet ñu jéem ko jiital. Mhm. d'accord kon Siteu Fagna merci beaucoup. jërëjëf jërëjëf.